di jot hudo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay def fi ñu wax ne bo noppé ñu teg ci bokki julit yi bokki talibé yi no ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh euh kilifa gëna wax ma ba jaxo dafa song buur yi xareek ñoom daldi joxe ndigal ci ni mbooleem sëriñ si nañ ko fekk Saalum ginnaaw bu mu gañee buuri Jolof la jox ndigal jullit yépp ni nañ gàddaay fekk ko Saalum mu joxe ndigal li la sàkku ci ñoom ni nañ xool ku ñu wóolu koo xam ni sart yépp dana daje ci moom mu mën a yor mbirum nit ñi di ko segg ka defaraat léegi ngir mu def ko muy eh, mufti bi doon seen kilifa bañ ne càll moom moo leen xelal ni leen sëriñ Bousso bi doy na ma ndax bu fekkee d'accord ngeen ci ma def ko ko seen baat dëppoo ci ñu def ko sëriñ Bousso bi moom mi mu yóbbaale ko mu ko yóbbaale mboolem ñu mën a àndal ñu dem Saalum jamono boobu Maba di togg nit ñi ne nañ ko fekk Saalum booba sëriñ Mamour Anta Sali ma nga ca njaax ànd ak nekk ak nijaayam ju bokk ak uh, woy juram ndey ak bàyyi ku ñuy wax Ahmadou Binta Kan moo ko soxna Anta Sali ñu bokk ndey ak bàyyi بكتب ليست noonu la leen maba toggee ni moom itam ñoom itam nañu waaj laxas te toxu toxu saalum ñu ko fekk saalum ñoom ñëpp mu diisoon lool ci ñoom booba ndax eh, nit diine yi fii ci Sénégal tàmmuñ doñ doñ ju bari dañu tàmm ab ba taxam loolu metti waaye teewul rek maba moom gis na ne moo nekk ci dëgg ngir la mu doon tiit mooy euh, caddo yi dalaat ci kaw sëriñ si ngir mere guñ ko mere ngir gañe gi mu leen gañe mën nañoo jéem a fayu ci sëriñ si te booba it loolu mën naa nekk nag waaye sëriñ Bachir wax ni maba di def képp ku gàntal it day jël sa njaboot jël say doom bàyyi dafa yow képp loolu bokk na ci li ko nit ñi critiqué waaye mu ni man mën naa mën na maa mën na maa wax ni mënees na koo jéggal ci lu bari lum njóobte yu bari yu mu def ci wàllu politique ak ñàkk gum ñàkk tey ak ñàkk gum ñàkk diisoo ngir dafa xëroon rek ci taxawal diine Islam, ak ñongal diine ak ñongal nit diine yi ndax li ñuy xamal xër gi mooy lu ëpp bu ko mësaan jajj dana jajj bu ñu ko mësaan jajj ci mbirum diine ko diine nangam nangam dina nanguwut nangam lu dana deltu ginnaaw te it mel na ni doonutoon boroom xam-xam te it wàllu politique yi xamu ko moo tax yàlla mën na koo jéggal ay njuumteem yal na yàlla fay ko aw yiw Mame nag jamono bi ma maba di dajale mbooloo mi di leen jëme Saloum booba mi ngi màggat ngi am juróom-ñeent fukki ak nangam mu jaar ngay bëgg koo yóbbu waaye mu gàntal ngir mag gi booba fekk na bi mu koy bëgg a jëlit fekk na mu jël Maamoor Anta Sali moom boo mu ngi ko jël romb ngay nag bëgg a yóbbu mambal Balla gàntal ngir mag mu jéggal ko ni li moy sababu ñu sax ca sal ci bir situation yoy nak ci la serigne bi se nak ci loxoy mamour Anta Sali bi serigne Bousso bi ande ak mom ba ñew salum bobu la delloo ci loxoy mamour Anta Sali jànge ci mom xam-xam ñu am fa ay at ande ak Maba yow na bobu mu kadior ndax sun borom lay gañe kajor moy sun borom moko dimbalel bopam ba xëcc buru kajor mu ñew jébbalu ci mom la sabab buru kajor di lat jor ñew jébbalu ci maba it mooy maa jooja faal dafa dem ba dafa xëccoo ak lat jor kajor ba not ko ci ma jojja ci ñi seen famille jëk doon buru kajor ci la bokku Lat Joor it moom lañ gënoon a jàppale ndax moom itam ay mbokkam yilif nañu kajoor lu jege téeméeri at ak ñeent fukk tàmbulee ci Lat Sukaabe moo ci jëkk ka ca mujj di sàmbalaw bi sàmbalaw bi nag moom la tubaab yi faloon def ko booru kajoor ay jamono waaye ginnaaw bi mujj rey ko bi ak juyoo amee seen diggante ñoo ko mujj rey maa jooje yi dafa jàpp ni moo gën a yaay ngir ñoom la moom la ay mbokkam jëkkoon a yilif kajoor jëkk ñii di yilif xëccoo boobu rek Lat Joor nag bi muy xëccoo ak maa jooja mbooloo mu bari dañu jóg ànd ak moom ngir ay mbokkam rek fi nekk ba tax na mu dàq maa jooja ay yoon ba maa jooja dafa mujj dem ci tubaab yi sàkku ci ñoom dimbal boobu tubaab yi ñu ngi fi biñ ñëwee dañu nekkoon ci liñ nekk rek ba ci dañ daan fab galak sax di ko jox buur yi damaa ragal ne galak googu tubaab yi daan joxe te di ko yokk di ko gën a dolli di ko gën a dolli moo dem ba mujj buur yi tàmbulee xëccoo ngóor gi ngir dañ ci ngir dañ ciy gis intérêt ndax tubaab yi bi ñuy doog ñëw dañ daan joxe galak dañ daan fay waaye seen yoon nekkul woon ci nguur gi bi maa jooja demee ci ñoom sàkku ci ñoom ñu jàppale ko ci Lat Joor nag ba ñëwee lañ dàq Lat dàq ko mu daw dem Saalum ba mu demee ba dugg suufu Saalum ci la Maba Ba yebale ay ndaw ñu xamal ko ne ko du la mën a recevoir ci lu dul nga tuub bañ xamee ne menn pexe amul la Lat Joor nangoo jëbbulu ci loxoy Maba am na ñuy wax ne Lat Joor dafa waxtaan ak kàngam yi lu ciy pexe ñu ne ko tuubal rek boo fi jógee xam nooy def waaye suñ borom def na loolu taw fi xam la ndax tuub na tuub ga rafet mu doxal diineem sax ca diine ja yàlla delloo ko nguurug maamam yooyu mu doon xëccoo di ko xeemeem eh, ci lu dul benn coono jëbbalu gi mu jëbbalu it sabab na mbooloo mu bare bare bari dugg ci diine islaam jëbbalu ñoom itam ndax kilifa moo mel noonu daje googu ñu daje nag ci salum mbooloo mépp daje fa ci la giir yi xamante ñu sore woon ay lool ci lañ xamante kilifa ya fa nekk it euh, kenn ku ne ak mayam foofa lay feeñe ba ci lañ gisee Mamour Anta Sali way juru sëriñ bi mu mel ni da leen raw ci rafetu jàngale ak wérug fiq ak dëggu ci àtte ba mujj ñi ñëw ñëpp di laaj ak di sàkku xam-xam fa la sippi seeni euh, bagage ci moom Lat Joor it aju ci moom lool di ko laaj lépp lu mu soxla ci ay mbiram moom la koy laaj xaritoog moom ba ak ngoro dox ak ngorom la dox seen diggante mu yor doomu baayam ngi hmm. soxna si jóg muy soxna Isa loolu lépp nag Maba mi ngi am kàttan rek dara manqué wu ci ba nem sooboo xarab siin xarab siin nag euh, bam ca sooboo fa la ko yàlla moome siin dëkk bu ndaw la bu nekk ci Saloum ay séeréer dafa nekk xeebu gim xeebu ak xat gam xat ak lim tàmmoon ci not not ci ab xare not Saloum not Jolof wan na armob kajoor buuru kajoor nekk ci biiram tax na mu woyafal ndëkk su ndaw soos yi songe ko ak kàttan gu bare bari goo xam ne siin mënuñu ko dékku tolloowuñ sax ay doole waaye nag ba mu koy song yit nag daf ko tegul ci waajtaay tegu ko ci ab nos moom maba te fekk waa siin ñoom ñi ngi waajoon ba jekk fas yéene dee ba jeex ci défendre seen bopp ak défendre seen réew dañu daal ba ci ki ci mujj sax bu ñuy dee ba jeexit buñ ci bañ dara te képp ku ci bokkal ci noonu nañ ko fi génnee ba bu kenn wax suñ secret ñoom ñi ngi waaj ba jekk ngir dee moom itam bi muy ñëw mi ngi bari mbooloo lool ak gàngoor ak ki bagage ak ki jumtukaay waaye nosewu ko nag dafa jiitu di dox arme bi topp ci ginnaawam amuñ lu may rekk bali fetal yi di tàkk wet gu ne mu bàyyi ko leen fa ñu gis gawar yi di rot ni meññetum garab gu wow di di di di rote noonu buur bi amul lu may gis yaram yépp di nàcc mu xam ni day dee ndax daw moom xelam xalaatu ko booba waaye mu continuer di défendre ak doole ba ni mu daanoo bi mu daanoo it ba toll ci di waaja faatu am na ci encadrement yi ku ñëw bëggoon koo wëlbati bëgg koo jubale la waaye mu ne ko déet bàyyil ngir yéene jim amoon ci jihaat di moytu kanamam di jëm fenn fudul ci wàllu fa arme ba nekk noonu la faatoo mbooloo ma daw waa siin dellu seen dëkk euh, ña ko wóotu nag moom Maba des fa di wattu lim jotoon a fatoo rek fatoo xaat yam jotoon am mooy dëkk yi mu jotoon a ci Saalum ñu di ko wattu di doxal diine waaye dolli wuñ ci dara nag noonu la Lat Joor delloo Kajoor ndax ña yore wàllu fal ak folli ñoo dem ba jubloo folli maa jooja daldi xalaata fal Lat Joor jamono boobu français yi dañoo am doole ci mbir mi ndax bi Maajooja sàkkoo ci ñoom ñu jàppale ko ba mu dàq Lat Joor boobu la am ci nguur gi ab cër ba lu ñuy defar dañ ci waxtaan ak ñoom waaye mbooloo mi yor wàllu fal ak folli waxtaan ak tubaab yi ci ni leen dañoo bëgg a fal Lat Joor tubaab yi d'accord leen ko ñu bind lettre Lat Joor ni ko ñëwal ñëwee ñu falaat ko la continuer ak ñom ba ak juyo amat sen diggante euh, ñu ray ko dal di yelif suuf si ñom tuba bi bi la jor di dalu kajor nak ci la sonal mamour Anta Sali ci bëgg mu and ak mom ngir diko jubanti ak diko dimbulé ci mbiri diineem ak yoral ko atté bi euh, bu ko défé lépp lu ma atté rek mu mën ko wéel ngir néna ko gisuma ci nit ñi kenn kuma doylo ni ma la سرين مامور أم سرير بيم خاله با لجس من لولا تي وار وار الدين أم لبوك بكونه تي لا بير نت غير دينه لولا ما وار الأمور بره فوق رك ويما دعوم تام يا كاتير يا ربي ينتبه وخني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يا ربي ينتبه وخني نت بو يالله غندي تي ياو كين كاب مو غن تي ياو woy xonq juri kër yi yoon boobu ñu ci yaakaar tax na mu boole yooyu daal di takk ay bagaasam ànd ak Lat ngir doonal ko xaaba yi ak di ko jubbanti ci yenn dem mu daggal ko suuf ci peggu kokki ñu di ko tudde pataar pataar nag soriwut euh, dëkku Lat Joor euh, soriwut cilmax mu amit ko fixeel muy ñëw ngir àtte waaye boo àttee ba noppi day dellu ci dëkkam boobee ngir bëggutoon jaxasoo ak nguur gi ngir euh, liy itteem mooy wàllu jaamu yàlla ak jàng jàngale laajul benn jaxasoo bi moo tax bu masaan ñëw àtte bi sàngam ngay man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu teg